ci Ucab FM. li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye. bis. huit mille doxalinu nguurug Sénégal ak lépp lu jëm na ci wàllug taxawaay bi moom la ñuy nemmeeku jamono ji ci lépp loo xam ne kon aju na ci wàllug taxawaay bu assemblée nationale taxaw na ko yéen kaay yu bëri daanaka moom la xëy kenn ku ci ne ak la nga ci nette sunu naataango yi xëy di xamal ne kay jamono bi nga xam ne kon moom lañ ciy doxalee loolee bokk na ci li nga xam ne kon ñu bëri waxtaan na ko waaye yeewu askan wi sunu naataango yi di Walfadjri ñoom nag daanaka ñu ci bëri ci député yi ña nga woon ci assemblée nationale ni ki démb doon feesal seen ay ñuggi ñuggi xool yéen yi xëy di ko nettali ba tey ah, sunu naataango yi ña nga ca jafe-jafe boo xam ne kon nemmeeku nanu ko ca ak lu jëm ci wàll ka ñenn seen ñoon ñoo xam ne kon na aw ba tey leneen loo xam ne na ñu bëri ci askan wi ñu moo xeeñ lool ci biir réew mi yéeni kaay yu bëri nag jot nañu del si ci woote bi nga xam ne kon njabootu ko limaamu laay jot nañu ko amal niki démb ah, sunu naataango yi le quotidien ñoo xëy di xam la rek ne ñii di laayeen yi kay ñoom nag ña ngay waar ak xutba ki nga xam ne kon moo di Ousmane Ousmane Sonko ba tey yéenekaay bi xëy di xamal rek ne kay ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di njabootu Laayeen ci waxtaan woo xam ne kon doxale ne nag lu jëm ci wàllu woowe nga xam ne kon moo di taxawaay bi tax nag ñu gën rek ñaan ak dal ci biir réewum Sénégal Mouhamadou Lamine Laye mi nga xam ne mi ngi sàkku ci Ousmane Sonko ngir rek lépp loo xam ne ko doon na luy suuxat jàmm mu def ca loxoom ngir rek jàmm maanaam ci ba tey yéen kaay bi xëy di xam le ne ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di lu jëm ci wàll que lii di xeexu mbedd moom bugguñu ko benn yoon waaye nag lu jëm ci xeexu fa ay mbañ gàcce dem ci wote kenn ku gañee jël ko yéen kaay bi xëy di xamal ne noonu lañu ko bëggee kenn ku ci nekk am nga sa sañ-sañ ak sa saw euh, bëgg-bëgg boo xam ne kon war nga koo mën a def mu doon nga am lu la naqari nga wane ko waaye nag lu jëm ci wàllu li nga xam ne kon moom moo di itte réew mi waaye itam lépp loo xam ne kon moo koy jëmale kanam ku ci ne war nga caa mën a bàyyi xel Mamadou Lamine Laye moom nag moo yëkkati kàddu yi euh, di ko jëmee ci Ousmane Sonko laas yéen kay ne kay lu jëm ci wàllu ko li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko jàmm ak dal gi nga xam ne kon bëgg nañu ko ci réew mi euh, kenn ku ci nekk nag tey ji taxaw nañu ko ca moom ki nga xam ne kon moo di Ousmane Sonko ne nag dégg na càkkuteef gi nga xam ne kon ñoom kilifa diine yi def nañu ko ca ngir nag lépp loo xam ne kon jëm na ci wàllu indi jàmm ci biir réew mi ngir mën ca doxale su naataango yi ñooñu koy deetal wàllu ko ci ñoom yéeni kaay bi di ji jaaxle dëggantaan la nu nekk ndax nag fitna ji xam ne kon mooy xeeñ ci wàllu ko réewum Sénégal su naataango yi di xam ne ne woote jàmm bi kay fu ne ña ngi ko fay dégg ci këri diine yi lanu bëgg rek mooy way politique yi delloo seen xel ci wàllu jàmm bi réew mi te xam ne rek ne loolee mooy li nga xam ne kon moo ñu mën a jëmale kanam groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru alxames ji ñoom nag yëkkati nañ seen ay kàddu doxalinu assemblée nationale ñu ne nag naqar na leen tamit na leen lool boo tax naka ñu ngi yëkkati ay kàddu eh, di joxoñ baaraamu tuuma kii jiite kër googale doon Amadou Mame Diop yéeni kaay bi xëy di xamal ne bëri na ci ay laaj yoo xam ne kon ñoom nag bëggoon nañu ko ngir rek waxtaan ak gouvernement bi te nag mu seetaan leen ba nag loola fi mu toll nii amuñu ci loo xam ne kon lu leer la Birame Souleye Diop mi nga xam ne moom nag mu ngi ci yeewi askan wi jiite groupe parlementaire ba ak ñamu àndal ñoom nag nee nañ assemblée nationale président ba doon Amadou Mame Diop moom nag daanaka lépp loo xam ne rek xàcc nañu ko ngir war koo mën a dóor ci luy jëmale réew mi kanam moom nag moo koy gàllankoor yéenekaay bi xëy di xamal ne lu jëm ci wàllu ko gouvernement bi ak na muy doxale ñoom nag naqaru nañu lool anam bi nga xam ne kon moom la ci nekk Sud Quotidien ñu koy nekk di député yu yeewu askan yi naqaru bëgg-bëgg yi nga xam ne kon askan bëgg na ko ñu taxaw ko te nag mënuñu dara ndax nag gàllankoor yoo xam ne kon dana ko def ci seen kaw su naataango di xamal ne lii moo tax démb nag ñu doon xorom too ko ñaxtu témoin quotidien ñu koy nettali Ahmed Mayib Daffé Ahmed Ayib Daffé doon nag député ci yeewu askan wi moom nag observateur eh, ci biir enquête da yëkkati ay kàddoom di xam ne rek ne amoon ji ginnaaw bi nga xam ne kon moom moom la ñu jeexaloon lu jëm ci wàllu ko projet de loi de finance 2023 bi eh, dafa mel rek daanaka assemblée nationale fi mu toll nii ab doxam dafa tàggatémbe lool eh, te nag dara waraloo ko rek loolu gàllankoor goo xam ne kon dañuy gàllankoor seen ay xalaat ak seen ay yëngu ba tey yéenekaay bi di xam le rek ne lu jëm ci wàllu ko calendrier bu assemblée nationale ak nanu koy doxale ñoom rafetlu wunu dara anam bi nga xam ne kon kilifa ga moom la cay doxe yéenekaay bi moo ñu koy nettali ba tey sunu naataango yi di xam ne rek di jafe dëggantaan kon la ñu gis ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko doxalin wi ak anam bi nga xam ne kon moom lañ ko cay xoolee ba tey yéenekaay bi dellusiwaat naka ci wàllu ko taxawaay bi nemmeeku nanu ko jamono ji nag kenn ku ci nekk war noo mën a xool lu jëm ci wàllu askan wi naka la ñu mën a def rek ba gën leen a yoral seen ay mbir waaye nag loolee dafa laaj ab gëstukub xool boo xam ne kon ñu ci bëri war nañ ko caa def yéenekaay bi di xam la rek ne jamono ji assemblée bi ni nga xam ne kon noonu lay doxee loole nag bëri na ci ay gàllankoor yoo xam ne kon ñoom nag ña ngi ko cay gis te nag nee na naqarlu noonu ko lool ba tey kii di Aji Mbergane Kanouté bokk ci groupe Benno Bokk Yaakaar moom nag ma nga yëkkati ay kàddoom jëme ci li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko bi nga xam ne war nañu koo mën a xool ci li jëm ci wàllu ko bi nga xam ne comme ko ca réew ngir rek loo xam ne kon doon na luy indi ak dal ak jàmm ci biir réewum Sénégal ba tey yeneen yéene kay bokk ca l'Observateur moom naka la mu seetlu mooy Karim Wade mi nga xam ne kon jamono ji euh, bëgg naa samp ndëndam ci wàllu ko jogante yi yéene bi xëy di xamal ne nag jamono ji naam day nekku fii waaye nag ñu bëri ña koy bàyyi bàyyi xel lool yoo xam ne kon jamono ji nag ñoom fa mu toll nii bëgg nañoo rek laaj li nga xam ne kon moom moo di wàllu ko bopp réew mi yéen kaay bi xëy di xamal ne kay jamono ci wàllu ko bu Abdoulaye Wade bi ak lu jëm wàllu ko nguur gi nga xam bëgg nañu ko l'observateur yéen kaay ne xel nag ma nga cay teey lool Karim Wade ndax dana bokk ci wàllu ko jongante yi laaj ba samp na ba tey tribune yéen kaay moom nag ma nga ca wàllu ko ñaar ñoo xam ne kon gis nañu rek ci wàllu ay leader politique yoo xam ne kon ñi ngi ci ñoom nag jamono ji ñu ngi xool lu jëm ci wàllu ko taxaw taxawaay bi ne kon gis nañu ko rek ne ñoom bëggoon nañ cee bokk waaye nag lu jëm ci wàllu parrainage bi tax na nag ñu di ko bàyyi xel lool ginnaaw benn at la ca des waaye nag fi mu toll nii ba léegi Sénégal kenn mun laa rek am yàqi ne eh, kii moo ciy bokk wala kii du ci bokk am na ñenn ñoo xam ne kon fésal nañ seen yéene waaye ku ba fi mu toll nii kenn xamugo ko yéeni kaay bi moo ñu koy nettal enquête yéeni ba tey ma nga ca lu jëm ci wàllu taxawaay boo xam ne kon gis nañu ko Khalifa Ababacar Sall digganteem ak Macky Sall yéenekaay bi ci wàlluk ëllëgam bi xëy di xamal rek ne lu jëm ci wàllu ko dossier bi nga xam kon gàll ko ci kaw kii di njiital Pastef su naataangooy moo xëy di xamal ne loole nag fi mu coolo bari na ca lool ba tey nag su naataangooy xëy di xamal rek ne jamono ji mbir mi nag ndax nag ak leneen coppi ko da ca am su naataangooy xëy di xamal ne avocat yi Ousmane Sonko yi lépp lu nu man ngir bi ñu teg ko suuf fi mu toll ña nga koy lijjanti Le Soleil yéeni kaay di delloo njukkal ak kañ cinéaste bi di Safi Faye mi nga kon wàcc la liggéey ca Paris la France bi mu am juróom-ñett fukki at bi lu nu xamal nekk di kii bokk na ci ñu moom lañ gën a ràññee ci wàllu cinéma ci biir réewum Sénégal su bi di xamal ne réalisatrice bi njëkk ci li nga xam kon moom moo di wi ci biir réew Sénégal moom la su yi di xam la rek ne bokk na ci nag ay film yu bëri yoo xam ne jot kii di Abdou Karim Fofana mi ngi koy jëmee rek ci wàllu li nga xam kon moom moo di marché Ndoumbé ba ca njaareem e point sn ne nag dikkam gëm fa ñëwoon fan fële ci ginnaaw naqaril na lool ñii di commerçant yi nga xam ne ko ñoo fa nekk su naataango yi eMedia point sn nekkay ñoom nag xoqatal lañu ko nee nag alarba lañu ko may alarba bu fekkente si joxu leen ndigal ñu ubbi marché bi danañ seen bopp te nag ndax yàgg na xaar bi lool te liggéey ba noppi na ñu leen di wijëng wajëng ne nag looleen moom nanguwuñ ko dégg tey duñu ko nangu ëllëg te nag bëgg nañ ñu indi ci ay saafara ba tey yéenekaay bi moo ñu koy nettali igfm point sn yéenekaay la moom bu nekk ci internet bi ba tey ma nga ca su naataango yi di xam ne loole ab jafe ko cay nemmeeku IGFM di xam la rek ne jamono ji kay taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nañu ko ci biir réewum Sénégal ak lu jëm ci wàllu ko taxawaay bu moo jëm ci wàllu ko bi di xam la rek ne Baye Fall yi sóobu nañ ci wàllu ko liggéey bu ñu ngi ko ca amal yéenekaay bi nag di xam la rek ne kay dëkk bu sell bi su naataangoo yi ñoo ñu nettali ne liggéey boo xam ne kon dañooy ci wàllu tribunal ba foofee nag àtte bu doon ko waxoon ci alxames ji yéenekaay bi nekk ci internet bi di xam le ne tribunal départemental bu Mbacke ñoom nag lu jëm ci wàllu àtte boo xam ne kon doon na ko àtte benn xale bu góor bu ñaar fukki la am dawalkatu moom nag dañu ko rek tuumaal la gaañ faat goo xam ne kon dafa am ku mucc gaañ ko loo xam ne nag jamono ji après ku mu doon agressé doon ab taximan paaka boo xam ne kon moom la ko doon agressé juróom benn weeri kaso la nu ko daan yéenikaay bi xëy di xamal ne fitna jooje nga xam ne kon moom la def ba naroon a faat kooki di borom taxi boobee loolee moo ko jural juróom benn weeri kaso yi mbokk yi nekk ay àngu digli incha allah. UCAB FM. li gën a fës ci yéen kay. Papa Saer Mbaye.